waaw salaam la famille maa ngi siyaar ñëpp Kaliphone Sall ñu ngi fii tey donc si Grand Théâtre comme niñ leen ko diggee woon euh, depuis fan yii yëpp ñu ngi préparé incha allah rabbi euh, li nga xamante ni mooy cérémonie d'investiture euh, son excellence monsieur le président de la république par la par les jeunes hein, du mouvement présidentiel donc cérémonie bi mu ngi commencer. a commencé donc ñu ngi am honorable député tarkala euh, kilifa yëpp a ngi nii toog macha ah donc ngeen xam ni que tarkala nous, euh, ngi fii grand théâtre macha allah ndaw fait un tey nous dañuy investir son excellence monsieur le président de la république donc ngeen xamee ko noonu ñëpp a ngi nii tarkala euh, ñu ànd seen sunu. jigéen DG Thérèse Faye Diouf ànd ak ministre Mame Mbaye Niang ñu ñëw teewal fi kilifa yëpp macha allah ngeen xam na tey bésu ala ndaw me la ndaw ñee woote te ndaw ñi bu ñu wootee kenn du des sama gars yi jàpp leen ni incha allahu rabbi di ngeen mën a seetaan lii di am tay fi yëpp incha allahu rabbi ci programme bi ci Kalik TV ngeen xam ne incha rabbi ah ñëpp a ngi noonu lépp a ngi toll fu mu toll nii kilifa yi ngi nii macha allah me ñu ngi fii ci Grand Théâtre Tarkalla ah macha allah ñëpp a ngi dégg instant bi waaw waaw waaw Tarkalla président Macky Sall rek waaw waaw waaw kontaan naa si macha allah ndaw ñee dajaloo nee nañu du ñu fal kenn ku dul président Macky Sall en 2024 incha allahu rabi donc askan bi bëri nañ fi tarkalla muy ndaw sénégalais nag ndaw ñi bëgg jàmm ñi ndaw ñi bëgg salaam ñi ñii incha allahu rabi ñoo fas yéene ah joxaat nguur gi son excellence monsieur le président de la république ngeen xamee ko noonu tarkalla xale yee ngi nii def sànce fii fees na del macha allah fees na del fees na del xale yi ñoo nanu wuy si présent nee nañu son excellence moo leen doy barkalla dëkk bi jàmm la ñu bëgg salaam la ñu bëgg ñëpp a ñu bëgg barkalla waaw waaw waaw am na solo am na solo jël naa la macha allah am na solo am na solo macha allah tarkalla macha allah macha allah jël naa la jël naa la jël naa la jël naa la tarkalla donc gars yi comme ni ngeen ko xamee ñu ngi fii ci grand théâtre bés bu rëy ndaw yee wootee nee nañu kenn doyu leen ci réew mi ku dul son excellence monsieur le président de la république encore une fois amuñu ku dul son excellence El Hadj moo ñu doy ci réew mi et puis incha allah rabi moom la ñuy votel en deux mille vingt quatre incha allah rabi donc ngeen gis ko noonu ñëpp a ngi noonu ah barkalla macha allah barkalla donc mu ngi noonu macha allah ñëpp allah. jërë ngeen jëf donc ñëpp a ngi nii toog gaa ngi ñëw noonu wuy si présent tarkalla macha allah ndaw ñi ngi nii teel teel teel teel teel teel grand théâtre mën nañ ne kenn xeju fi lii buñ ko defoon ci biir salle bi kenn du fi xej moo tax gaa yëpp ñëw tarkalla macha allah ndax muus nag du ànd ak muus ak gaynde gaynde nag mooy ànd ak gaynde encore une fois ma sœur Thérèse Faye Diouf sama wax du sori ci yow mais li ñu ñor mooy le président de la République bépp ndaw bi fi ñëw képp koo xam ne mobilisé nga képp koo xam ne jël nga président de la République. macha allah am leen jàmm waaw dëggantaan macha allah kontaan naa incha allah incha allah jaajëf maa ngi ñëw maa ngi ñëw jaajëf donc ngeen gis ko macha allah ah. Senghor barkalla kenn xaju fi ñëpp a ngi wuy si fees del ah def sañse barkalla macha allah ñëpp ñëw toog wuy si ngeen koy am nii ndeysaan ñëpp nee nañu son excellence alaaji Macky Sall moo leen doy ci réew mi moo tax 2024 incha allah ñu fas yéene ko joxaat bopp réew mi rek ku mer nag kalaamel rappana ndeysaan ndaw ñëpp wuy si toog def seen mobilisation bu tarkalla macha allah ñëpp ñu toog mu ngi mu ngi naaj tarkalla comme ni ngeen ko xamee allah DG Lat Diop kenn moom DG Lat Diop borom Lonase kenn moom. macha allah DG DG Lat Diop yàgg taxaw ndaw ñi tarkalla waa Guédiawaye yëpp kontaan nañu Sénégal laa wax kontaan nañu ci DG Lat Diop gis nañu liggéey bu rafet bu muy defaral son excellence monsieur le président de la république kenn du moom tarkalla ngeen gis waaw waaw mbooloo bi yëpp xëju ñu ci biir salle bi moo tax ñu def ko si esplanade bi tarkalla suba ba léegi nit ñee ngi wuy si depuis 10 heures suba nit ñee ngi toog dara ñoru leen lu dul son excellence mën a falluwaat ci réew mi ndax falluwaat président Macky Sall mooy jàmm réew mi mooy naataange réew moo tax nee nañu wooy ku am sa fin de fer jëlal ñun sunu jamaa la am te ko weccoog fin de waaw waaw ndeysaan big waaw donc wanaat leen ko rek wan leen lépp wallah ndeysaan ñu ngi nii mbooloo fu teew yëpp rawatina kilifa ñoo teewee bés bi di jël nuyoo bi ak cant

du lenn nag lu dul la candidature du président Macky Sall. micro micro micro. je pense que tey. micro coow li bëri na. wax li bëri na. te lu ko waral yëpp. moo nekk ay nit ñi nga xamante ne amuñu projet amuñu programme saa bu ñu xëyee ñoo ngi wax li nga xamante ne. Président Ourapa du président du Sénégal. Je pense que les réalisations du président Amal jàmm. Waaw waaw. Président Macky kontaan nañu amal jàmm ndeysaan Mame toujours derrière le président de la République ndeysaan toujours derrière le président kooku mooy Mame Mbaye Niang bu ndaw ñu woote mu ñëw kenn du moom ne kenn du Mame Mbaye Niang macha allah honorable a ngi noonu tarkalla kenn du moom député yi dañoo présent macha allah waaw waaw tarkalla yaa ngi ci biir ndeysaan allez looy daw <laughs> kii ma yor organisation bi man yëpp nelawul doomu ndey Thérèse Faye Diouf barkalla ay mu ngi rafet donc gars yi comme ni ngeen ko xamee ah gis ngeen ko lépp a ngi nice lépp a ngi tolloo fi mu toll sama gars yi macha allah ndeysaan macha allah Matar Diop mooy jël parole macha allah Matar Diop honorable Matar Diop subu mais ñoom ñëpp ak sama directeur général de la PNA Matar moo ko doon la parole Matar merci kii li wax nag mooy Matar Diop dafa bari président waaw non kay. merci merci beaucoup. voilà Matar. aouzu billahi mina seytaani rajim. bismillahi rahmaani rahim. jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér. ci ñaari fan lañ ko organisé kon donc

à voir ce qu'il est en train de faire sur l'équité territoriale, sur la protection sociale, sur le désengagement, mais aussi sur la sécurité et la stabilité du pays. Et c'est cela, au fait, qui est important. Je m'avais donné la parole très rapidement à Diegui Diop. Diegui, vous avez la parole. Merci, merci encore une fois. C'est vrai, c'est vrai qu'ils sont là, Diegui. Diegui va prendre la parole et le

Wow. Je vous ai déjà dit que le PUDC, sa première phase est de 123 milliards, la deuxième est de 300 milliards. C'est vrai, c'est vrai aussi que hier, à Tamba, avant-hier à Tamba, le président de la République, dans son conseil des ministres, a pris 17 orientations et décisions concernant cette région pour un investissement de près de 500 milliards à trois ans. C'est ce qu'on appelle le programme vraiment Vous étiez là-bas, vous êtes témoin de ça, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous savez que dans trois ans, le président va injecter 500 milliards à Tamba. Il a parlé de la sécurité, du désenclavement, de l'hôpital à construire, mais aussi des artisans, de la culture, des terrains de sport. Vous savez, Khalifa, s'il vous plaît, dans l'Union Syrienne, vous avez un moment de Honorable député Annie Mbeng. de Louga. Anéo Anéo ñu ngi jox jàmbaay ci kaw gi. Allé naa Dakar yëpp dégg. Anéo jàmbaay Louga jàngoog. Anéo waaye jàmbaay président Macky Sall jàngoog. borom Linguère borom Daara Jolof di jàppale président. kii mooy jigéen ju mën góor. kii mooy ki nga xamante ni boo demee ci plateau yi moo fa mën Sikasso Mbacké Kouta bi ci boo arrière bi en tant que député boo nekkee bon daa jëm ku sama yàlla macha allah ah yaakaar naa ni yéen a ko gisandoo fii yëngu na barkalla. AG ah, ñu ngi lay félicité ci initiative bi ak ñi nga xam ne ñoom la ko àndal tey ba mu mel nii. macha allah fii ngi yëngu. ñëpp ne nañ président Macky Sall 2024 incha allahu rabbi wax ji benn la. waaw waaw waaw. boo fi def lu kenn deful. boo ñëw Tarkalla la Diop borom Lonase ndaw ñi kontaan nañ si moom Tarkalla ñëpp kontaan nañ si Lat Diop. DG Lat Diop day jàppale ndaw ñi moo tax nag ndaw ñi kontaan si moom Tarkalla kenn du DG Lat Diop ci biir réew macha allah. aja ndaw pengen a ngi nii taxaw la jeunesse ndaw ñee ngi nii nee président Sall nu bu la président Sall jeunesse ngi président jeunesse ngi président Sall allez allez. donc mu ngi noonu ah fii la ko ngi tolloo. waaw la ko ngi naan macha allah. léegi nga jógee Tiwaawan. macha allah am na solo. waaw Tiwaawan am na solo. jaajëf macha allah. jaajëf donc ngeen gis ko noonu sama gars yi. Fally naam na Merci à vous. je les merci les étudiants. je m'en vais maintenant. c'est vrai les tribunes sont pleines. les tribunes sont pleines pour ceux qui viennent. les tribunes sont pleines pour ceux qui viennent. Je m'en vais maintenant. Bravo aux étudiants qui sont là. Je m'en vais donner la parole. J'ai quitté Louga. Je vais prendre maintenant. Je vais aller à... Voilà. Voilà. aussi est là. Ok. C'est Ablaïdan et Steven. Ah, c'est Ablaïdan. Ok. Pour Ablaïdan aussi, le Andal, s'il Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va maintenant, tout à l'heure, on va maintenant donner, on va maintenant donner la parole. On va donner la parole à. Wow. On va donner la parole. Voilà, merci. waa Fatick yéen a ngi ci biir macha allah waa Fatick ñëw nañu nice macha allah donc ñu xaar tuuti rek. jël naa la jël naa la. asalaamaaleykum. ça va bien. jaajëf jaajëf. wéyul wéyul. macha allah ndaw ñëpp ñëw nañu buy si présent. tarkalla ma nekk ak sama grand frère. kenn moom Libaas Baas borom banlieue. ndaw ñëpp ñu ngi si ginnaaw Libaas Baas. borom Pikine Jidda Caaroy Yëmbal lépp mooy borom. kontaan nañ si yow. ñu nekk ak tamit sunu grand frère. di nit kuy liggéeyal président Macky Sall noo gisee bés bi tey. waaw ah, mais Kali xam nga la may wax. Ah. wax ci ñun ay ndaw président lañ. te ñu am fulla lañu ñu am jom lañu xam liggéey lañu te ñu ay yàmbaar ñu ay yaafuus mais nag problème bi mooy dañoo bàyyi nit ñi di wax Macky président Macky Sall di liggéey def lu kenn ko def ci réew mu raw ay maasam yëpp jàng bu heure bu mu war a jàngee def lu bëri ñun nañu nekk ndaw dëkk ci baalu yëpp di nuyu waa yëmbal benn face di nuyu waa OSIS comprendre nga ñun nag dañoo ñëw pour dëggalal suñu président mooy suñu candidat à 2024 bu ko yoon constitution bi mayee ñun mooy suñu candidat Abdoulaye Diouf Sarr si ñun nag ay nit yoon lañu droit la ñuy gëm moom mooy suñu candidat la def nag mooy remobiliser suñu base remobiliser suñu parti xeexuñu xuloowuñu euh, di ñaan yàlla jàmm yàgg ci réew mi mais nag di wax ne ñii di di xoxatal nit ñi di wax ne président Macky Sall désormais ay ndawam yoo xam ñoo ko gunge woon jox ko nguur joxaat ko nguur tey ñoo taxaw kenn du yéen jërë ngeen jëf. donc yi ba léegi ñu ngi fii ci grand théâtre xam ngeen ko macha allah ah donc maa ngi ñëw. jaajëf donc noonu macha allah ah kontaan nañu. ndaw ñi bëri nañ fi lool ndaw ñëpp ñëw ici pour xalaat son excellence monsieur le président de la république incha allah rabi ah donc ñu déglu Doudou Ndiaye Mbengue mooy def play bagam barkalla ñëpp ici ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp président président

baabu la ngi noonu tarkalla masallah borom Yoff tarkalla masallah masallah gis nañu tamit honorable député waña ñëw na masallah borom Dalifort tànn si moom <laughs> waaw yàlla yàlla yokk teewul. amiin amiin amiin Merci. Merci. Merci beaucoup. On va, on va continuer les travaux. Maintenant, je vais appeler, je vais appeler Thérèse Sardouf. Tunjay Aïssatou Ndiaye de Kaolack Okay. incha allah waa Tamba digal

notre pays, notre avenir et celle de nos enfants à des aventuriers et des stagiaires qui sont... ndaw ñi ndaw ñi ndaw ñi seen problème là? commerce sa problème la nit ku ne am nga droit far fu la neex nit ku ne am nga droit far fu la neex lii bu si nit meree problème la ndaw ñi nee nañu président Macky Sall moo leen ñor ndaw ñi nee nañu soxlawuñu keneen ku dul son excellence waa loolu lan la si nit di mer yéen libre ngeen far fu leen neex mais ñii tamit dañoo libre far leen neex moomu leen réew mi bu leen sonal li ñi ku mer damal seedaani télé ah fu mer demal seedaani télé ñii ñëpp ñu ngi si ginnaaw président Macky Sall ñii gis nañu seen i ay leader mais nee seen i ay leader doyuñu leen ay find feer ngeen du ngeen dara ñoom ndaw ñi nee nañu gëmuñu leen waaye yéen da ngeen bëgg ñun ñu bàyyi président Macky Sall ñu ñëw ñu gëm leen gëmuñu seen leader ah noppaleku leen ah non lu ngeen di mer naa leen ñu bëri ndaw ñee ngi nii gis ngeen ndaw ñee nañ président Macky Sall moo leen ñor keneen ñoru leen waa lii lan la si nit man lii lan la si nit man ñoom nee nañu soxlawuñu benn opposant waa lii la si nit man ah waaw ñoom nee nañ président Macky Sall moo leen ñor ah waaw léegi ku mer sa problème la ñii c'est des sénégalais ñoom def nañ seen choix

voilà. voilà. Thérèse Faye Diouf va ministre noo gisee mobilisation ndaw ñi. waaw ah, vraiment ñuy fàttali ñun suñuy jamono di remercier Thérèse ci initiative bi suñu cër mooy ñëw jàppale ko parce que ñoo daan ànd ak moom di ko def mu ñuy jig donc tey bu jëlee initiative bi suñu cër mooy ñu ñëw jàppale yàlla jaar fam daal jaar ak ñun. macha allah ndam incha allah. lan nga mën a dénk ndaw Sénégal. waaw ni leen euh, jiitu réew mi day man seede laa ci yéene bu mu am ci Sénégal daf ma xam ma nekk cadre de l'aviation civile sama programme yëpp nekk ci dem Canada. ñaari waxtaan ñetti waxtaan mu li nga jàng nii yëpp état du Sénégal jox la bourse nga bëgg a bàyyi def li canadiens yi ngay liggéeyal ci ñu mën a changer réew mi fii sama waxtaan loolu moo tax bu commencé may expliquer di ma wax vision et loolu moo ma convaincre moo la convaincre moo convaincre Sénégal yi yëpp lii mu nekk di def ci réew suñu ndam la donté amna na ñu ko bëgg a yalla suñu borom du leen seetaan waye détermination bi tamit wane na ni que nit bëgg incha allah dinañ ko waye mooy Macky candidat 2024 incha allah président du Sénégal 2024 2024 incha allah allah donc ndaw ñi gis ngeen kooku di ministre Mambay Mbaye Niang li wax leer na ndaw ñi ñëpp ngeen gis tay ñu présent fi tarkala ñom nenañu gëmuñu kudul euh, son excellence monsieur le président de la république xam ngeen ne li tarkala mobilisation exceptionnel la te lii passé nous événement préparation quatre jours donc encore une fois bu un mois day que manipulation nous Sénégal yi bëgg ndaw Sénégal yi bëgg Sénégal ndaw Sénégal yi bëgg jamm Sénégal nañu présent kenn son excellence monsieur le président Macky Sall

nous rejoindre pour nous accompagner dans cette importante manifestation. Le mouvement national des femmes pour l'action de Gaulle est À présent, je vais lire la déclaration ou la résolution générale de la plateforme Maki pour 2024 en remerciant également toutes les délégations qui sont venues des 45 ou du partie à travers des délégations venant de toutes les contrées du Sénégal, se sont retrouvés au Grand Théâtre national. Ces retrouvailles fraternelles et politiques ont été pour eux l'occasion d'échanger sur les grandes questions de l'heure, celles à la fois brûlantes et portant sur l'avenir du pays. Pour la plateforme Manitou 2024, le Sénégal notre pays est en tournant décisif de son histoire. Engagé dans un exaltant processus d'accès à l'émergence, notre pays fait face à de multiples défis et de périls qui interpellent tous nos compatriotes. Aujourd'hui, plus que jamais, la République est pays les citoyens agressés et l'état de droit régulièrement parfumé par une élite nationale populiste qui dévitalise la démocratie et érige la violence tant verbale, physique que psychologique comme mode exclusif de présence sur la scène politique et publique nationale. Pour la plateforme Petit pour 2024, les attaques permanentes et inacceptables contre nos institutions sont d'autant plus dangereuses qu'elles se retrouvent, qu'elles déroulent dans un contexte sous-régional dominé par le terrorisme dans ses multiples dimensions. Les remises en cause régulières de l'ordre constitutionnel aboutissant à l'usage des voies non démocratiques d'accès au pouvoir. Les égoïsmes nationaux s'affirment de plus en plus et les crises multiformes, sanitaires, économiques, énergétiques, voire militaires se font jour et destructurent des relations internationales. Dès lors, sauver le Sénégal, chers camarades, devient un impératif international et national de première ordre. Redéfinir les contours de l'intégration africaine et notre insertion dans le système mondial est une exigence urgente. Faire face à toutes ces menaces exige d'avoir à la tête de notre pays un homme garant et dépositaire de la stabilité intérieure, respecté dans le monde entier et soucieux de son sort, du sort de nos compatriotes. Pour la plateforme Maki 2024, cet homme politique, de surcroît, mais aussi cet homme d'État, avec une trajectoire atypique porteur du Yokouté, réel et du Yanda, Salvateur et le président Macky Sall, président de la République. à Patrie. sachant que les nouvelles découvertes pétrolières et gazières font du Sénégal la cible des forces occultes. La plateforme Mathieu pour 2024 estime que le président Macky a démontré à la face du monde qu'il est un bâtisseur hors pair, un régulateur avisé, un réalisateur pour de tous et pour tous. Merci Thérèse. Grâce au système euh, au système tiers à la réalité de l'accès universel à l'eau, à l'électricité, au nom de l'équité territoriale, je mettre de mes côtés le président des maires, à l'élargissement de la carte sanitaire des universités, je pense à nos chers jeunes frères du mouvement national les élèves étudiants républicains. Je remercie Abdoulaye Le président a fini d'inscrire le Sénégal sur les rampes de l'émergence. Le président Macky a permis à notre pays de rattraper progressivement son retard extraterritorial, de résorber les équilibres entre les villes et les campagnes, de réduire les inégalités sociales ici nos politiques sociales et notre démocratie à des niveaux jamais appris. La plateforme Matibou 2024 juge que réélire le président Macky en 2024 est devenu une nécessité et le meilleur pour garantir un avenir radieux en 2024 à notre cher Sénégal pour répondre à l'appel historique. La plateforme Maki pour 2024 investit solennellement Après, on n'a pas de nañu xalaatee ni dafa néew di mun na doon di faju hôpital USD mu ci am juróomi junni te mu yokk ko muy juróom-ñaari junni donc président Macky Sall ku ko gis tey xam ni bu fi nekk toon réew mi dina am nu mu demee sax waaye nag taxaw na muy jàmm ci biir réew taxaw na li nga xam ne ñu dëgëral institution bu gën sax moo tax ñun ndaw ñii jóge fu ñu ne du ñu bàyyi benn xale buy jàng politique benn populisme wala kenn koo xam wala kenn koo xam wala kenn koo xam wala kenn koo xam au moment où benn xale dina woo ci procès au moment ay étudiants dina laaj ñu fayal leen seen loyer au moment où Ziguinchor gis nañu ne mu mel ñuy prôner la violence dans ce pays. Merci Thérèse. waay. merci beaucoup. dama leer. allo. ñu leen di wax ne ñu leen di bàyyi. ak suñu artiste Pape Diouf foog naa ne ñu bàyyi Sani Faye daal ñu introduire ko. Yeah. bopp sigil de sigil sigil sigil sigil sigil de jëlal bopp sax sigil de yow yéen a ngi def fitna muy neex yéen a ngi def fitna muy neex ngeen yàq waaye waaye waaye video わわわ。 amal jàmm kontaan nañu jaajëf jaajëf Pape la woon donc gars yi Pape Diouf ñëw na def participation tarkala wéy na ba mu neex ah ndaw ñi kontaan nañu lépp a ngi tolloo fi xool tarkala macha allah ñooy jàmbaaru président Macky Sall yi les Amazones d'Amber ñu ngi nii kenn du ñoom ci ñu kontaan si moom Marème Babou macha barkalla ah Marème Babou kenn moom si biir réew ndeysaan jaajëf eh.

Doamna Moina Leu, degeaba presa în sală. Am dat sala, din tot dați-vă. Mais abdu abdu abdu abdu abdu abdu abdu gisee bés bi tey. sant yàlla d'abord bu baax. waaw. am solo. waaw gis ko ci.

Nous sommes maire la au conseiller nous mu dem top la top descendons sur le terrain mais pas du tout sur le pied de l'argent mais faire un am Faire président bañ a ci ñun en ñu nous ndaw yi Nous sommes Nous élection mais nous avons lu riir mi bari bari bari bari te amul continuité du sotti continuité bi mooy ñi dara dimbale ñi dara ba dara mën a dimbale ñeneen bu ñu demee élection 2024 kon danañ ah, ah, yaakaar naa ne ah, sama grand ngi noonu amal jàmm rek jaajëf légaliste jaajëf ñëpp kontaan ndaw ñi kontaan nañu ndaw ñi bég nañu tarkalla nee nañu 2024 incha allah du ñu fal ku dul son excellence monsieur le président de la république. waa lii lu ko gën a neex waa lii lu ko gën a neex kan mooy am lii di dem feneen kan mooy am lii di dem feneen waaye wax leen ci kaw